am ne seytaan rajim bisimilahi rahmaani rahim mbokki kuréelu jamaatu muridina saadixina wa mbokk yi fii ñu toll nii ñu ngi ci barabu Cheikh Moustapha bi ci buntu barab bi di fi amal li nga xam ne moo di maolaali bi nga xam ne nii moom lañ daan amal at mu jot ngeen dégg mbokki taalibe yi noonu tàmbali ko wax dëgg yàlla fas ko yéene daaj daaj bu am solo muy njàng muy miin mu am solo moo xam ne nii ñu ngi koy teewlu ba tax na bari na sax ñoo xam ni ñu ko ciy gën a roy bu baax a baax ci nañ ko xaw na waya fale kon Baye Serigne moom mi ngi sant mbooloo mi waaye mbooloo mi ñu koy sant bu baax a baax ndax du doon loo xam ne nii eh, Cheikh moom Moussa Mbacke moom lañ koy defal nanga cay woo rek waxuma la mi koy def na ngay sant waaye ña la woo rek wax dëgg ñoom it war nañoo sant yàlla bu baax a baax kon moo sant di ko di ñaan mu yàgg koo taxawee nu yàgg ko fee fekk eh, ngeen xam ne nag Cheikh moom Moussa moom li ngeen xam ne danaa wax ni man man Moustapha day fa ëllëg kenn du ma waajur muy Cheikhul Khadim. gone yi dañu ñoo bëgg a nax kon nag nañ ci dugal suñu loxo daal ciy dugal seeni loxo bañ ci dugalee loxo yi la tàmbalee nag waxtu wu nekk muy dox waaye booba it na ba am na ñoo xam ne gannaaw bi sax bañ ko fàtte nañ ko am ñoo xam ne ñoo fa des xaw cee néew ñi di ko dundal dund gu xaw a yem daal waaye ku mel ni Baye Serigne nga xam ni sa jamono yooyu ku jiite la bokkan itam naa ci dox waxtu wu nekk ci sonnee bàyyi ko na day salaam googee dem ba njëriñ sax ci sànce boo xam ne dañ ko faa toogloo